feeñal ñaari waxtu yoo xam ne kenn nit du ko julli woon kon la ca biir a tax ñu di ko def la biir nag mooy symboliser loo xam ne moom la moom la dul islam doxee noonu mooy lépp loo xam ne yàllaa nga ca biir nan ko mën a feeñalee nga di ko feeñalee def naa ne ñu jógee màgg xam ngeen ci dara ci am xam-xam loolu itam mu ñëw fii taxaw fi la ko jël la ci gën a am ak li tax ñun ñëpp mu dox di ñëw fu ne ñu jëfa ni ko ministre waxee léegi bàyyi say soxla bàyyi tàngaay bépp ñëw ngir ay wax rek léegi naa sànq ndax muy wax ne dana dund wax laa ba lay dëgg dëgg jàngale diine takkusaan bu cinq heures sariya dafa am lu mu digle ay péer lay nattee wax dañ caa nattalee montar dimbale leen diine dañ koy jàng du juróomi wax bu ma waxoon waxtu bi ba mu jeex waxtaan bi laa waxee waaye kon mën naa am ñeneen yow dëgg waaye wallaay xaajal bu sax dimbale fii ay jullit rek rek rek rek waxuma sax dara waaye wax lu sax yaakaar naa ne suñu borom borom ci bindal naa dara waaye yow jàng nañu diine xamoo ci dara daan naa am sax doo ko waat rek fu dara jógee rek say soxla ñoo ngi ñaan yàlla nag di baal ci sëñ Touba képp yàlla na la yàlla mu li ci des mooy kon sëñ bi moo ñëw fii ci jamono yoo xam ne njëkkul ci moom tubaab yi fii ci ndar ndar toroxal nañ ko nit diine ba tey nit bu yàlla ba tey maa ngi ci jaar jaaraale sax sant monsieur Lansana Sabiré sant nañ ko. jàppal gi ñu leen jàppal suñu université bi am na kii ñu fi def koo xam ne tourisme lañ ko bëgg a def religieux mooy jàngataat ubbeekuñ ko xam naa mën naa ko ubbi ngeen jël am solo nit ñi di jàngal diine boo ñëwee ndax xam kilifa liñ fi jaare du rek nga dem ca dex wala nga dem ca géej gi bu dee Touba bu dee Tivaouane foo ci mën a dem nga jàngat la fa ne ba loolu seeg benn waaye ci pénc ma rek mu di la wax wax joo xam ne xamul ko dara loolu fii lañ ko bëgg a def dafa tabax nañ ko taw taw danañ ko ubbi incha allah kon euh, loolu nga xam ne moom la sëñ bi def fekk ñeneen ñoo xam ne ñi ngi fi woon wala ñu bari ñu ngi leen ci doyee ngir diine jooju euh, te te te tubaab yi nga xam ne ñoo ko doon def wax wax wax bu nekk bu nekk ñu def ko pexe bu nekk ñu def ko te bu ñu damay bëgg yëpp nag bu ñu nee sëñ Touba ñëpp jàpp ne la tàmbale ci Cheikh Oumar Fouti ba ci Cheikh Sidi Alioune ba ci mboolem kii di jóg diine ko sax ndax ñoom ñoo diirante wuñu woon Makka dafa amoon lu ñu gisoon kenn ku ne gis yàlla dara du jeex kenn ku ne di tibb kenn ku ne di tibb da ngay def da ngay tibb la nga mën a loolu moo indi yëf yi waaye du ngiroo du maayoo du xiiroo ak xaaj loolu teewul tubaab yi di leen jàpp di leen jël ca kaw li ci suuf li ci suuf a gën a gën li njëgul ak wanewul moo gën a métti moo tax maan am na ku ñëw ci man sànq dañoo bëggoon ñu bind ci buntu pare bi 1895 lu jëm ko ñaari fukki at def naa suñ ko fàttali ko waxoon naa fi ne booba amoon yëroo naa yoo ci nañ tudde barab bi fekk nañ jëndi fajar bi tudde ko barab bi sëñ Tuubaa ma def jëm nañ ko tudde Samba Yaay Fall mu xaru woon ci dex te di ko julli looloo gënul sëñ Tuubaa sëñ Touba tuddee ko Faidherbe te bi yéen waa Ndar yéen moo ko gën a xam. kon mu mel nag yooyu détail nañu dem ci l'essentiel te bàyyi détail xëy na ak xëy na wante mbir mi du loolu. loolu la ñu fi wax daaw ne ma bi daaw ñu ñëw seet dama seet problème la. ñun loolu yëkkatiwuñu feneen bi defe naa ne tey fa mu nekk ak ak lii tey dana ko wute lool kon loolu loolu doy te li am solo mooy bu ñu tax a mooy tax yu nii nañ ci bàyyi lu bare nañ ci bàyyi lu jëm ci di ko faje mer ndax taxu koo jóg xam naa bu baax ñi ko jiite mooy mooy Fane Lam sonn nañu lool ndax mbir mi yombul ndax damay wax ne njiit bu bëggee rek xam ne xam na xajale na boole na ñaari bopp muy responsabilité ak pouvoir saa boo jëlee responsabilité ko pouvoir rek ñoom nag li ma gis ci ñoom bala ma xam ko te yàgg naa am na ko rek ñoom yooyu kon. jàpp naa ne bu doon puukaree ak leneen def naa ne dana demee leneen kon tamit ngir yàlla na yàlla dimbale lépp nag waa Ndar yàpp wallaay fa wallaay Mbakke ya baax euh, li ci des it ki ngeen ko tuddee muy sëñ Seydou mu lu am solo la depuis 1978 dañu daan def bëccëg à la zone soo ko tàmbali at bu jot ñu tànn benn kilifa tuddee ko la jàngat la bind ca seet loo xam ne dañ koy teg ngir ëllëg kon kon fàttali ko tamit am na solo lool kon itam nit ku dal la kii fi nekkee ñu di ko ñaanal bu baax kon la ca des mooy nan xool nag bu baax nan la ñuy def ak fan la ñuy jëm ak lan la lu ñu tax a li ci am solo mooy fi ñu toll ci jamono nga xam ne dafa ne diine mooy kan ñëpp wala mooy noonu ñëpp. sëñ Tuubaa tamit ñëwoon ngir rafetal ngir dimbali ndax yàlla wala ku nekk soo mel ni wax waxul yonent ci moom jeex na moom sallallahu alayhi wasallam ci la mujj waaye fu ne yàlla def na fa koo xam ne mën ngaa roy ci moom te kooku dafa war a luñ ko sol dafa góorgóorlu ba am loolu sëñ Tuubaa bokk ak ñi fi nekk la kooku nag bu fekkee da ngaa ànd ak moom da ngaa war a xam bu baax li tax nga amee ànd ak lu tey bay diine nag ñi ko xamul dañ koy xaajale ak adduna mais yàlla diine bi dana ko sampal ngir bu jaaree ci adduna mën a dem ëllëg ko borom loolu mooy borom diine saa boo ko xaajale rek da nga am lu da nga perdal lu bari ba tax na fi ñu toll li gën a am solo mooy ñun xam ne moo topp ku baax mu muy kilifa ku ci topp kilifa diine ku na noonu bàyyi xel yu bari ndax bu fekkente ne arootaan arootaan yi bi yaay ñëw jàpp yaay ñëw kër bu dañu def boo demee koo xam ne ndax arootaan arootaan li tax euh, wa maa yu'allimaani min ahadin hattaa yaqulaa innamaa nahnu fitnatun li tax alxuraan ne talaa takfur li tax alxuraan doon mu di wax kon moom du mën a yéemal parce que seetaan yi kuy wedd lu ne foog la wax loolu kon ñoom kon dañoo wax ne malaaka la ñuy malaaka waaye li am solo mooy dañuy gis naan nit ci wàllu lu ne ba wàllu xëram la boo xam ne waaye danañ ba jaxase ba sa jël kon mën nañoo wax ne nit mën naa nekk këru diine taxawaay représenté ba aaro programme yàlla ñu yàlla mos ci ñaari ñaari yoon yaa jooju ak mbaa jooju rek biir groupe la bu fekkente ne ñaar yooyu dañoo am nag ak groupe boobu ñu leen puus bu leen ci diine mën naa am jafe-jafe loolu loolu tamit dañ ko bàyyi xel bu baax ñu bàyyi xel bu bari ci diine ci lu toll ñu bàyyi xel bu bari ci lu mu xamam te kër nit diine nañ bàyyi xel ne adduna adduna am na loo xam ne nit ki nga xam ne sax xamul dara ci diine sax dem ba ma ñu diine di ak wala mooy def ko mooy bëgg adduna bëggin boo xam ne wàllu ku ne loo xam ne ka xamul diine sax du ko def mais loolu ku ne xam naa kon alors que maa ngi foofu la yàlla jël ma jël mooy groupe yooyu kon loolu fokk ñu génn ci mbir yi li ci des it mooy ma gis ne liñ jàpp bare na lool ñëpp a ngi wax réseaux sociaux yi ak lu ma di doon waaye ak lu mën a xew kenn ku nekk boo nekkee kenn nga war nekk nekk lu baax bu la tàmm bu ñu sax amul importance defal la nga a def a nekk du xool sa borom rek kooku bu boobaa kon nañu jéem a jàng am am xam-xam jéem fexe ba nekk ci lu baax yi nit ku bokk fu baax ku nekk mu xam-xam la def ndax lii gën kat bu dee àdduna a la tax a jóg mën ngaa gis ko lu ko lu ko gën ko xam ne leneen nga def bu ko jox kon lépp solo mooy kenn ku nekk boo nekkee ci mbir fa nga war a nekk dañ koy dañ koy boole responsabilité boo ko defee te du la problème mu mel ne kon fii ñu toll nañu gën a góorgóorlu bu baax. bàyyi wax ju bari bàyyi waxante yi bàyyi politique fu ne mën ko def sëriñ waaye yéen ñi teew ndax fi àdduna toll ndax xam nañu dara ndax lii tubaab yi di def ba léegi ñun day dem nañu Chicago seen Mourtada moo fa dem ba mu ko njëkkee dem dafa fekk ñu ci benn ci musée ba fa nekk ne sëñ sëñ Touba 1895 bi ko tubaab yi jëlee dañ koo faat def ko ci kees bi dellusi sëñ Mourtala Diallo yi ñu wax ko ko mu dem dem keroog ba mu ko demee ne leen loolu ko lan mooy julli la te sëñ bi moo ma jóg keroog lañ ko dindi xotti ko bind fa loolu ba léegi bi ñu ko demee ci mois la fa nekk kon yëpp yi yàgg que tubaab la wala ko nekk suñu suñu biir rek waaye ndax sëñ sunu jënd maam sëñ bi daal di ko wax kon na wax ne sëñ Tuubaa moo ko ne danañ da nga gis ma ànd ak moom waaye la ci gën a yéen mooy dafa ne moo na man la ñuy tuddoo kon nit nañ koy teelu bu baax si sëñ Tuubaa téewul ba daw daw sawara jàmm jàmm ñooñu nag fa adduna nekk ba adduna tukki jàkk rek ak seen sët ak seen i sëtaat waxu daaw bi ëpp na ñaar fukki juróom wala yooyu juróom fukki nit yoo xam ne tubaab bi ko bàyyi bu jaaree saa bu ñu xëyee di pare loolu amoon na ko est ñooñu seen i ak seen i yëpp double wul wala ay junni junni léegi bari na suñu tubaab bi dafa baat bu am solo moo xam ne dafa ko ku ci bokkul te kenn mënu ko cee génne kooku lu am solo la dafa am na ñu ci bokkul te kenn mënu leen cee génne ñoo ñoo yàq loolu nag fokk kenn mënu ma jël sa responsabilité kenn mënu ba lay jël sa Tuuba di jaare ci yàlla ak yéen wala sa almaani wala keneen bu baax kenn mënu ko soog ci xëy na mën nga ciy jublu mais mën nga ciy jublu day mën nga mag bu boobaa yaay am na la neexee nga gëmatu ko am na am na ñoo xam ne la tax ñu gëmatu ñu dañ ko gis yàgg tey jii rek am na ñoo xam ne yëpp nañu ne ci bitim réew dañuy dañuy jékki-jékki lu koy def léegi fekk dañu laa bokk da ngaa bokk fii ñëpp dina xool local nga dem ci bitim réew def ko jàpp boo xam ne ci nekk sax ñëwul ko mais dañ naan naan lii mën nekk jënd yooyu ñu koy bàyyi moo tax kenn ku nekk boo xasee ba gëm yàlla gëm ak yoon jaarale ko baax parce que diggante jëlal nag sa sa boo gisee loo xam nga xam-xam gisul ko xam-xam waaye bu yëkkati nit lu ñu def la ba ca di mat mat la def ngeen ñëw la di wax di di di non mënaat loolu ma jël lu nit di def képp koo xam ne sa diggante yàlla dafa dafa am kooku jëlal sa responsabilité boo gisee loo xam baax boo gisul loo xam mu jeex la kon nag ñu gërëm ñëpp ndax wax ko ñu ngi gërëm ñëpp sant ñëpp di yal na yàlla def ñu dajewaat ay at te yàlla dimbali nu nu nu sax ci li mu bëgg te bàyyi wax lu fi mën a xew ñoom ñoom ñoom ñëpp nañ ko bokk ànd ak jàmm te bàyyi coow yëpp yi loolu noonu yàlla mooy waxe kon nag ñu ngi gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulah